Pape Faye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Aba. alors ngay jiitu nag euh, kuréel gi ëmb artiste comédien yi nekk fii ci Sénégal tey nag ñuy màggal euh, bés bi ñu jagleel théâtre ban innovation rek euh, la ñu indi ren jilee fii ci Sénégal. waaw mën naa wax ne innovation amul ah dafa newoon démb ak barke démb moo fa ba tey li def mooy journée mondiale du théâtre la képp koo xamante ne kii da ngay yëngatu ci wàllu. théâtre bi ah euh, dafa am bés bu ñu ko théâtre bi dafa am bés boo xamante bi dañ ko jagleel euh, waa axlu yi waa axlu théâtre bi bon léegi ñuy féete bés boobu le vingt sept mars ca théâtre national Daniel Sorano comme ni ñu ko daan defee at mu jot mhm. bu ko defee képp koo xamante ki yaa ngi yëngu ci théâtre nga ñëw foofu am na discours dana am ay ay pièces yu Euh, dana tax nit ñi ci théâtre gi dal di booloo nekk benn yëpp an bokk ndey bekk bokk baay su ko defee suñu paree foofu dal di ku nekk nag dem fi nga xam ne mooy sa mooy sa liggéeyukaay fa ngay répété euh, ngoon gi comme lañu nekk jamonoy koor dafa xaw a beneen beneen beneen la ak présidentiel yi jóge beneen contexte la ba tax na ñoon dañu ne bu ñu jógee Sorano ñun en tout cas Arcos de Dakar euh, trois ñu commencé def ay ñaan suñu mbokk yi xamante ne dañoo yëngatu ci théâtre yàlla na ko bëgg daal na leen di fa jógee ñu dal di def ay ay spectacle pour sunu gan yi ñu invité ak artistes yi ñëw yëpp waaw bu ñu paree spectacle yi am na ñu waxtaan wu jëm ci wàllu théâtre laaj ten ndax théâtre war naa mën a defar ay jikko ndax théâtre war naa mën a euh, boole ñu féewale woon ñoo xam ne voilà dañu waro euh, gis-gis théâtre ndax mën a def loolu loolu la ñu bëgg a waxtaanee te xam am nañ yaakaar ni am nañ yaakaar ni théâtre war na ko mën ñu woo ci nag ay yoo xamante ni ay borom xam-xam lañu bu mel ni Khalifa Khalifa Diagne bu nekk COUD mooy DGA bu COUD Fama Diouf yoo xamante ne sunu partenaire la à RTS ak sunu xarit Seydou parce que thème bi nga xamante ni bokk na ci li ñuy ñuy joué intéressé moom en tant que un un spécialiste de de de de la santé. dana bu ñëwee dana ci wax kalaatam bu ko jotam mayee après am na fa ay lijaasa yu ñu joxe xale yi nga xamante ni doon nañ leen tàggat ci wàllu théâtre daañ leen joxe ay mën ñu ñaar fukk ak euh, ñaar fukk ak juróom ñi presque fanweer la ñu jox leen seen i lijaasa am na itam kilifa yi fay ñëw yoo xam ne dañ leen di dafa seen lijaasa itam ci mhm. ci fànn woowu waaw alors lan mooy donc buñ paree nag ndawu foofu nag waaw. alors lan mooy différence su nekk euh, théâtre démb ak tey. sauf que théâtre démb booy xool ñun ñii ñi ñu ko gisee ñun mooy ñi nga xam ne dañu jàng ci wàllu théâtre populaire waaw bu ñu ne théâtre populaire euh, ñooñu mooy ñi nga xam ne demuñu ci école yu mag mais dañu formé woon ay association rek euh, formé association créé ay di répété dem ci quartier di joué dem di ñëw ak yu mel noonu loolu donc loolu mooy théâtre populaire loolu mooy théâtre populaire théâtre mooy ñi xam dañu école des arts conservatoire jàng ci daara yu mag ñëw di jàng théâtre def théâtre à partir des pièces de théâtre yi xam loolu mooy différence bi waaw. alors day da ngay gis euh, ñoo xamante ne dañuy jaawale euh, lii di théâtre ak cinéma euh, lan moo ci réellement différence bi pour suñu auditeurs yi nga xam te ne ñoo ñuy déglu. waaw théâtre ak cinéma am na différence kii parce que théâtre mooy comédien bi dafa nekk sur scène di jouer jàkkaarloog mbooloo am texte boo xamante ne bii daf koy répété ay ay fani fan weer wala ñaari weer yooyu di jouer da ngay defee ne dëggal la ci moom or que da ko waajal public baa ngi noonu sol ay costume ay yére yenn yére pour nuroog jëmm ji ñu koy jox jëmm ji ñu muy interprété bu dee cinéma cinéma bi nag du soxla yooyu cinéma bi moom euh, réalisateur bi day soxla rek nit ki bindam ni mu bindoo ni bindoo xar kanamam bi mu ko jox loolu la bëgg mu ko ci bu cinéma bi bi loolu la. Mhm. am ay répétition amul daal da nga ñëw rek mu xool la ne la joué ma lii nga joué ko bu baaxul mu ne la reprendre ko mu ko jël une fois deux fois trois fois ba ñi fukki yoon nga koy reprendre mu choisir plan bi ko neex rek daal di ko préparer ay séquences mhm. waaw dugal ko ci kii bi donc différence bi loolu la quoi en fait. alors euh, da ngay gis nag ñoo xamante ni dañuy euh, jaawatli lii di personne ak personnage lan lañ ci mën a jàpp. waaw personne personnage mooy personnage bi mooy ki ngay roy ki dugg ci jikkoom dugg ci colinam dugg ci waxinam ak manière waaw loolu mooy personnage waaw personne bi mooy yow si jëmu bopp lii nga nekk ne bu ci changé dara bu ci dindi dara bu ci dara waaw. loolu mooy différence bi waaw personnage loolu la quoi personnage encore une fois dañ naan jouer ma rôle buur pour nga jouer rôle buur il foog nga dem wuti yëre buur foo nga sol dali buur foo nga xoo wax waxini buur foo nga dox doxini buur su boobaa nag yaa ngi personnage bi mais buñ ne la jouer rôle euh, yow Pape Faye jouer mi li nga nekk sans nga changer dara su boobaa son personnage rek la sama jë la indi am na réalisateur yoo réalisateur xamante ni ñoom li ñu soxla ci acteur bi mooy ni mu bindoo ni mu mel ni ko yàlla tëggee loolu dong la soxla waaw ci wax a wax ci doxin wa ci ci ci colin wa ci jukko ja waaw am na ñoo xamante ni eh bien évidemment euh, noonu la ñu mel mënuñu changer am na réalisateur yoo xamante ni ñooñu la ñu soxla mhm. ndaxte bëri na ci ay artistes yoo xam te ne tamit ñoo ngi leen di critiquer jamono ji euh, jëm ci wàllu boobu am na ci ay artistes yoo xamante ne jamono ji ñoo ngi leen di critiquer euh, jaarale ko rek ci seen rôle yi nga xamante ne ñoo ngi koy jouer. waaw ñooy dañoo comprendre lu bari parce que boo jógee ci tournage li ngay sol après da koy simmi nga sol sa yére da ngay simmi ko ba seet sol yeneen yére yu bokkaw la yi nga doon tourné mais nag am na ñoo xamante ñi li ñu tourné ah moom la ñuy yandoo moom la ñuy demee tool moom la ñuy demee euh, àll ba moom moom moom la ñuy demee euh, je sais pas marché moom la ñuy demee cinéma moom la ñuy demee euh, soirée du ñu changé yére du ñu changé dara du ñu donc loolu à mon avis ci doye de la bokk ci ñàkk xam la bokk waaw ci ñàkk xam la bokk. Mm-hmm. alors cinéma. Mm-hmm. def ko simi boobu teg fële nekk la nga nekkoon dem. très bien yéen jafe-jafe nag ngeen di euh, jànkonteel euh, saa su ngeen di amal li nga xam ne mooy seen pièce théâtrale ñàkkum ñàkkum moyen moyen yi wax naa ko mooy euh, moyen yoo xamante ni dana mën a tax artiste bi ci boppam war a liggéey liggéey bi nga xamante ni moom la nit ñi di séntu ci moom parce que création dafa laaj alal dafa laaj xaalis dafa laaj lu ne booy def création te amuloo ay moyen doo dem parce que da soxla décor da ngay soxla costume ah. da ngay soxla euh, déplacement parce que foog nga paas ñëw bu dee da nga yor oto foog am moyen boo def ay xaalis boo def jënd essence dugal sa oto pour ñëw liggéey si ah euh, dafa laaj montage lumière dafa laaj acteurs yi itam at dañ laaj seen cachet parce que loolu duñ yaakaar ci li ñuy dund gëmuñu leen dudul théâtre moo tax dañu ne état dafa war a ci loolu pour mën a subventionner les acteurs de façon régulière waaw acteurs yi su ma ne acteurs de façon régulière mooy ñi nga xamante ne dañu association yu ëmb ay kuréelu théâtre di leen mm-hmm. subventionné chaque année nga xamante ne dootuñu soxla di laaj chaque fois nga xam ne mm-hmm. at bu jojotee rek systématiquement ah cette subvention de mais euh, c'est compliqué pour euh, ici am nañ yaakaar ne xëy na dana changé dana mos a mais jamono yi ñuy wax ak yow état bu dugalee xaalis ci ay euh, production théâtrale dafay fekkee ne mu nekk ay festival wala mu nekk ay euh, ay journée mondiale très bien en tout cas Pape fay euh, jërëjëf may fàttali rek ni yow yaay njiitu kuréel gi ëmb artiste comédien yu nekk fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci bu baax a baax